li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore kii di honorable député Cheikh Thioro Mbacké nekk vice président bu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi daal dina yëkkati ay kàddum rek tontu ne moom mooy maître Oumar mi nga xamante ne dafa sàkk woon rek ñu criminaliser li nga xamante ne ci biir réew mi kii di Cheikh Thioro Mbacké nag daal dina koy tontu yoo xamante ne rek wéñ ba ca tab bi daal di dee lam ko daal di xamle moo di ne nag moom ci jëmmi boppam rek lan la def ba mënuñoo criminaliser li nga xamante ne moom mooy homosexualité ci diir bi nga xamante ne rek nekkoon na fi président bu groupe parlementaire bi ndax ñoom nag ca booba jamono ñoo yoroon li nga xamante ne rek moom mooy majorité bi leen tere voté boobu les lois ngir ñu criminaliser ko ba tey rek ne na ma ngi koy fàttali nag bu fekkee ne rek dafay fàtte wala dafa naax nag na daal di xoolaat bu baax nag li muy wax bu fekkee ne moom ci jëmi boppam rek dafa bëgg nag reetaanlul sénégalais yi lu tax rek mu yëkkati yooyu les kaddu ginnaaw bu ne rek moom ci jëmi boppam rek moom moo bloqué boobu les lois ba tey rek

ba jógee ko ci nag di wax lu la neex ba tey kii di Cheikh Thioro Mbacké nee na maître Khouyoum bu fekkee ne moom dafay daal di joxe leçon moom na ko joxeel boppam ndax nag ñoom ci seen yëmi bopp rek ba ñu nekkee nag président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci ñi bloqué nag li loi rek ci la bokk bu fekk woon ñoom ci seen jëmmi bopp rek ci seen tayeef ko noonu li di homosexualité criminalisé nañ ko bu yàgg ci réew bi di Sénégal ndax ndax mbir mu nu mel ko noonu sax li di ay débat rek du fi daal di am bu fekkee ne nag ñoom ci seen jëmmi bopp daal dañoo bëgg rek waxtaan amul benn raison boo xamante ne tey jii rek existe na lu doon nag politique dong rek euh, moo leen ci dugal ndax nag 24 mars bi kese rek lañ soog a ñëw ci nguur gi euh, ba tey rek kii di Cheikh Thioro Mbacké nee na nag kii di maître moom ci jëmmi boppam rek euh, ba mu amee jot ga wala mu am sañ-sañu wax nag moom en tant que juriste formation nekk avocat xam na bu baax daful dina jàppal ko li ci séparation pouvoir lii di pouvoir exécutif bi nga xamante ne rek jamono ji ñoom mënuñ ci lenn ndax ndax amuñu majorité foofu ci assemblée nationale kon nag lu tax moom ci jëmmi boppam rek validé wul ko ci diir bi nga xamante ne rek nekkoon na fa mu daal di yëkkati kàddoom ne ko monsieur le donneur de la leçon yow mii di joxe ay leçon lan ngay xaar rek pour li nga xamante ne moom mooy loi criminalisation homosexualité ginnaaw rek bi nga fi nekkoon ndax rek li ngay wax ni est-ce que lu sérieux la mu ne ko déedéet loolu kay mënul sérieux ndax nag li ngay wax ni intéressé wul la ba tey rek nag lam ko daal di xamle moom député bii di Cheikh Thioro Mbacké mu ne ko nag ndax yéen ci jëmmi boppam a bëgg a dofloo sénégalais wala ngeen dem ci ay débat politique yoo xamante ne rek mu doon waaye nag tàmm ko ci yéen parce que yàgg ngeen di ko def ba tey rek mu daal di yëkkati kàddu ne nag bu fekkee na régime bi daal dinañu conscient ci lu ñu nekk ñaar réforme yi nga xamante ne rek mi ngi fi dinañu changer mbir yi te nag li nga xamante ne moom lay sénégalais di dund bët bu set nag ak coppite dina ci am ndax ñoom ci seen woon diirub fukki at ñaar yi nga xamante ne rek def nañ ko ci bopp nguur gi tey nag loolu muy indi ay leçon de morale bu amee daal ku muy jox leçon de morale na ko teel boppam di kat kaddu kii di Cheikh Thioro Mbacké mu daal di cay yokk mbirum góor jigéen moom bu soobee yàlla fii ci Sénégal dinañu ko criminaliser di kat yi nga xamante ne rek honorable député nekk vice président bu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Cheikh Thioro Mbacké daal dina koy xamle jër ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche notification yi ngir bañ a raw